li ñuy wax ñoom soofa yooyu ni waxtu jaay si la boo ko dëggul mu dagg la boobu baat di jariñoo naa ko ci ñoom ak li ñuy wax ni sa bakkan boo ko soxlaalut ci dëgg mu soxlaal la ci ay caaxaan mhm. bànneex nag mooy ñamooru bakkan rek ndax booy xool ni yox di yàlla baa nga koy wax baa nga koy jëf rek sa bakkan daf ciy jële doole ñu bari def nañ na bakkan doole mi ngi koy jël rek ci nga lekk ba suur ba nga naan ba màndi dëgg la loolu dana jox bakkan doole waaye nag dooleem ji muy noo ak roo ngir mën a daaneel roo jooju mi ngi koy jële ci ngay nekk ci lu neexut yàlla ci ay wax wala ay jëf loolu saa boo koy def rek loolu di nuru bànneex du bànneex bu am njariñ te mi ngi dooleel sa bakkan di ko jox doole joo xam ne soroo du ko mën a tëx mën ki faaw mu góor góoru ci loolu laa bis dira kulli man waaye du ceeginu nekk di xeeb képp koo xam ne rek xawaa làq na sab xam ak raw waaye leerug nga màgg googu mëni su ko jële rek ci ku la di ko xeeb wala nga di ko ŋàññi wa afdalul aqwaal li gën ci wax yi nag fil maraami ci càkkutéef kalimata shahadatul islaam yi mooy ñaari baati seedee lislaam yéen moo gën a màgg ci lépp lu ñuy génnee ci làmmiñ loolu سرين بي واخنا لاكو تي تسود سيخار دا نك كلمتان مو ملني نياري بار لم سي جيبل رك لا اله الا الله محمد رسول الله كان بن بار بن بي لا اله الا الله لا نسي جيبل بار نيارل بي موي محمد رسول الله وافضل الاقوال في المرامي كلمه شهاده الاسلام لي گن سي مبولم لا اله الا الله محمد رسول الله تودي الله لا إله إلا الله بعد أم صلى الله وخمني مو غاو تي راي باني اخي بكاني نيت يالا لا نيو خ يوي أنا بو دي نك نيوم تي رين لا جوخ يريني بات يو خامني لو ماني الاسم المفرد نا خاني موي راي لو ماني جانغوري خول يالي اي راي جونو ديمي موم لا نيو بو سيدو النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفتمه ينفتم kon fokk ya fokk nga feral ko feral ko mooy da ngay ak moom bu bëggee dara nga ne ko déedéet xale bi ngay bo doog a feral waxtu wu nekk muy jooy ween yi waaye da nga koy xañ sa bakkan noonu la li muy bëgg ca amalu la njariñ da nga koy da koy da koy da koy da nga koy ko ci dox diggante moom moom la yàlla di ñu wax ne qad aflaha man zakkaha ginnaaw bakkan boobu dañ hawa ñu wax passion maanaam li nga xam ne nit ki mën naa am xam ràññee nga gis mu nekk ci ab safaan fekk te bànneexam bakkan bànneexu bakkanam moo ko ca moo ko ca moo ko ca yóbbu am na ku xamul mais am na koo xam ne xam na waaye dafa mënta të bànneexu bakkanam moo tax yàlla di ko misaala mel ne koo xam ne dañoo def seen bànneexu bakkan muy seen yàlla afara ayta man ittaxasa ilahahu hawaahu wa adallahu llahu ala ilmin boo xoolee ku topp xawaam day fekk mu am ku amul ràññee lay doon léeg ngay jaaxle ci nit kii lim jàng lépp di def lii muy def vraiment fekk te la la la la ko alak la ko yeew mooy bànneexam moom la topp ba loola dominer ko ca lu la dominer ba mënoo koo bàyyeeti da nga wëlbatu jaamu lool. moo tax yu suñu borom di ñu moytuloo lool topp hawa wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مدخ إمام بوسيدي رحمة الله عليه دي واحدة فصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يزمي أو يسيل وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسلم كم حزن حسنت لذة للمريقات لدى وهي لم تدري أن السم في الدسم kon sa sa bànneex foofu it gis nga mag ñi ci njàngaleem alxuraan am na loo xam ne mënoo tàggoog moom mënoo ko ñàkk kon da koy wëlbatiku jëmale ko fu baax yow boo bëggut boo bëggut zikkar sa du sa zikkar du zikr du du du du jàng ay ay ay ay ay ay ay xasaay sa hawaa koy def ca musique ba rek am na ñoo xam ne ci sport ba lañ ko def suba ak ngoon maanaam bu ñu tëddee sax ñi ngi gént match bay war a am nga xam ne dana leen yàqal seen lépp dana leen tax bu duñ lekk duñ naan kon moo tax moom ñoom dañ ne la sa hawaa na nga ko wëlbati yóbbu ko fu baax moo tax imaam bu Seydi wax ne fasrif hawaa fexeel ba bu mu la dominer boo demee am na beneen bayit boo xam ne sëñ boo ko wax dafa mel ne dafa mottali booba ne wasrif hawaaka li ridaa mawlaak wëlbatil sa hawaa jëmale ko ci luy gërëm loo sa borom ndax mbir la moo xam ne munoo détaché wu ak moom kenn mënut a nekk ci àdduna te bëggul dara kon fexee la bëgg lu baax boo bëggul lu baax bëggub safaan